Euh, grand ñu ngi lay nuyu di la ziar. sant euh, gisee match bi nga xamante ne dafa war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée euh, ñu gis ni ñoom ñaar ku ne génn na ci victoire mu war a nekk match bi nga xamante ni yombul naka nga gisee en tant que sénégalais. waaw en tant que di am di am yaakaar rek am am am ndam parce que ñu ngi football ak équipe boo xam ne xamante nañ quoi xamante nañ ci dëkk waaye ay pays de voisin lañ affaire yooyu jàmbar nga dax si diggante ñoom di ñaan yàlla. ñu dóor leen rek dóor yi gaaw te yaatu mooy loolu loolu laa si ki kii gis quoi. aussi naka nga gisee équipe nationale bi dañu xamante ne absence yi bari na euh, ñu ñi xamante aussi Gana Gueye euh, du jeu suba ndax euh, dafa positif naka nga gisee match boobu noonu. waaw c'est un peu dina xaw a compliqué si Gana Gueye jéewul parce que au moins moom defe naa su am na 3 kan xaw ma 4 kan waaw am na sa expérience mais xanaa booy Marseille bi nu loolu rek lañ bëgg ah mu indi Pape Gueye mu football te équipe lañ wax quoi waxuñu espoir individuel soxla nañ ko ci équipe tamit mais tamit Gana Gueye waru mun a nekk absence bu grave grave grave contre contre Guinée bu fekkee Gana Gueye mooy absente contre Guinée ñuy tiit moom jaratul ñuy dem kaan quoi wax dëgg yàlla. naka ngay gisee tamit équipe bu Guinée bi nga xamante ni keroog euh, équipe bi bi ñu gis équipe bu mag la yor euh, am ay ndaanaa fa nekk ku mel ni. Euh, maanaam naka xam nga Sadio Mané bi nga xamante ñoo bokk même équipe bi ñu nekk fay Liverpool naka nga gisee équipe Guinée bi. waaw waaw Guinée équipe bu baax la sax équipe bu baax la tam mais mais pas pas pas tellement tamit nuñ koy nuñ koy waxee quoi. du équipe boo xam ne mu ngi produit football peut-être premier match moom moo ëpp lu mu produit football que Sénégal ñëpp xam nañu Sénégal baax na mais ba tey jeu buñ soxla gisuñu ko quoi dañoo dañoo gis si Sénégal jeu bu yéex te loolu loolu du du signe kuy gagné coupe quoi. yàqamtiwuñu quoi yàqamtiwuñu dañoo bëgg équipe boo xam ne day yàqamti football ay professionnel la fa nekk Aliou Cissé tamit na bàyyi équipe bi ñu libre quoi mu bañ a xalaat tak offensivement bañ a encaissé bañ a encaissé loolu jëlatul compétition de bi a encaissé bii compétition ëppale bii moo koy jël mun nga dugal mun nañ la mun nañ la dugal 4 nga dem dugal cinq mais yaay gagné. tamit gannaaw dugal tamit ñu njëkk la dugal tamit loolu tamit dina xaw a difficile de bi nga xam ne dafa dem ñu ñu nga xam ne yaa njëkk a loolu tamit dina xaw a métti waxu waxuma njëkk encaissé yow mais bul sóoraale encaissé ba mu ëpp loolu da ngay tënk jeu yi jour da nga leen ñu libre seen liggéey la da leen bàyyi ñu libre ñu fubal ku su mel ni Bouna Sarr Sadio Mané nay jël nay nay jël nay jël responsable bi quoi mun na koo fekkoon munu ko man Gana Gueye su ma yoroon équipe di fubal dama ko mere nag de. parce que Gana Gueye xam naa ne équipe bi yëpp ñu ko fi dàq fubal bëriwul Paris moo gën a métti Paradise mu ngi fa kii mu ngi fa Verratti mu ngi mu ngi fa mais dafa ñëw imposer dafa ñëw imposer par la force imposé wane ne man dàqu leen mu football mais pourquoi fii du jël initiative am imposé pour football loolu loolu lañ koy xeexee man su ma doon équipe dama koy su ma doon entraîneur dina toog 3 matchs du football parce que du question ñàkk mun footballam de dama koy mere le fond du joxe à 100 pour cent te ñëpp xam nañ ne Gana Gueye mën na ko. ah match bi moom ñu xool rek parce que match yi moom sénégalais gars yi day day dóor football leen leen encore Guinée Conakry tamit gars yi moom taxaw nañ de pour football bi léegi ñu xool rek. surtout ñu gis leen ni ngeen ñoon équipe bu baax équipe bi nga xamante ne que seetaan nañ ko équipe bu baax la Sénégal aussi tamit jóge victoire am ay absence naka nga mën ne maam naka nga gisee boobu noonu. waaw man sama problème bi mooy ci Afrique man ma bëgg rek naar yi mu dem naar yi mu dem ñun mu toog waaw loolu laa bëgg si ci équipe bi quoi. Sénégal ak Guinée kan mooy gagné. Sénégal Guinée ah boobu moom instant moom ala rek moo xam ala rek moo ko xam lool. Sénégal mooy gagné. ah mun na nekk. senegal mu gagné mun na nekk sami Guinée mu gagné parce que ñaari moom ah <laughs> du yomb de. dafa mel ni wóoloo si équipe moom wóolu nañ leen boo dee gars bu baax. wóoloo si équipe ñun xam nga ay senegal nee Sénégal mu ngi gagné yéen yéen a war a wax kay Sénégal. am na mun moo jaxase waaw mun na wax si côté Guinée mun naa wax si côté waaw léegi moom nu xool rek nu seetaay rek ah ah ku gagné rek baax na waaw. ñu lay <laughs> man max bi bi bi ma seetaan laa découragé. tax nga découragé. amatuma yaakaar ci équipe nationale bi. ndax lan ndax yaakaaroon naan ay gaynde lan mais duñu ay gaynde. mais grand bul fàtte ne euh, match bi paas da nga amoon ay absence. ba ci la ñoom ñëpp ay joueur lañ xam nga joueur dañoo sélectionné ku ñu dugal rek c'est parce que da a football moo tax absence warul feeñ ci max ndax 10 ak muy 11 bu la dugalee nga reyante mais mennum Sadio Mané kese du joueur ñu bëgg a jël lépp yan ko ko attanu ko te boo boo ko ci génnee moom joueur desatul foofu. naka nga gisee match Sénégal suba Guinée ak Sénégal yi nga xam ne ñoo dëkk presque mun naa ne ay dëkkandoo lañ naka nga gisee match boobu. ah waaw mais que le meilleur gagne rek man moom boo bëggee dëgg-dëgg moom supporter ma Sénégal supporter ma Guinée Guinée ku gagné ma ma jubilé. gannaaw di nga supporter benn moom wax dëgg fa. yàlla xam na ne supporter tuma kenn. ku gagné ma jubilé victoire laay supporté man. ma gisee absence su Gana Gueye bi nga xamante ni xamal nañ ko moom du mën a. waaw mooy li ma la wax rek affaire bu du Gana Gueye du Sadio Mané du kenn danoo sélectionné dix ak góol muy onze képp ku ñu woo rek war ngaa mën a ñëw xataraay wane sa bopp ba mu jeex tàkk mais pas ñuy basé wu ci kenn wala bu ñu amee benn absence naan non équipe dafa manqué lii comme équipe bi nag day manqué rek du ma sa mat kañ la ñuy gagné. nga yaakaar ne bu ko bu ko Sénégal defee dina gagné. ah xanaa bàyyi bakkanam ci terrain bi rek kese lu waaye di wut moom da nga ciy boole fu ak fayda gëm-gëm gëm ni di nga ko am. boo ñëwee bu jaree dee nga bàyyi sa bakkan ci terrain bi mais feeg joueurs yi loolu jarulu leen ko te pourtant bu ñuy fubal ci tubaab bi da leen koy jaral ah. mais est-ce que fubal ci tubaab ak Afrique benn. waaw peut-être bokkul nag bokkul waaw bokkul ndax dee fee moo gën dee fii. waaw man de bëgg naa ñu kenn ku ne am un bi quoi ñooy ñaari waaw kenn ku ne am un bi. mas ni nga bëgg quoi. waaw mas ni laa bëgg waaw. pourquoi bëggoo Guinée euh, am benn bii kenn ku ne quoi garaaw. naka nga ko gisee ah, ah, équipe bi ci mel ni ah, Guinée ñu gis ni keroog am na équipe bu baax comprendre nga léegi aussi Sénégal tamit am nañ ay absence ñu war a daje naka nga gisee match boobu. Euh, match bi xam naa dina dina neex quoi dina neex match bi dina neex parce que ñaari ñaari équipe yëpp bon mun nañu génn nañu ay kii de mais noonu ñaari yëpp quoi génn nañu fii football bi nga xamante ne jar na ay supporter quoi non non. naa ku nekk lan mooy sa avantage ci match bi. bon ñoo ñaar kay man bu ñu ñoo ñaar ni instant fu ñu tolloo nii quoi support naa leen ñoo ñaar ñëpp. moo tax ma ne kenn ku ne dafa am benn war am benn bi quoi y' a pas de problème. xool xool gannaaw boo sayoon nag Guinée gagné bu Sénégal nar a daje beneen pays nga bu dul Guinée quoi Sénégal laay non <laughs> non jarul may ne ko yàlla na gën a gañe quoi. <laughs> waaw match bi waaw ñoom ñaari ñëpp yor nañ équipe yi bu baax waaw bi moom match bu neex la war a doon waaw. kan nga yaakaar mooy ah, laa gën a yaakaar mooy gañ de Sénégal. mais mais grand naka nga dëkkee Guinée Sénégal Guinée ñëw Sénégal naan Sénégal xaa xaa faraloo de ñoom ñaari ñëpp laa Sénégal laa laa si gën am yaakaar quoi. ndax lan équipe bi dañoo bokkul wala waaw Sénégal moo gën a xaw kii quoi. mais gannaaw am nañu ay absent yu bari yi nga xamante ni ñun suba duñ jee ku ci mel ni Gana Gueye mu ngi nga xam ne yéen yéen gi ne moom ngeen doon tiit jéewul kay xanaa di nga xaw am yaakaar tuuti sax dina gañe. Gana ah Gana même bu ñëwul tamit am nañ ñeneen joueurs yoo xam ne ñëwaat nañ ak kii bi tamit match bi daal. marché la daal mais yaa am naa yaakaar daal mais lu. lan ngeen di lan ngeen ah, xaar suba ci Naby Keita bi nga xamante ni mooy seen vedette. Naby Keita ah ñu ngi koy xaar si milieu bi mu def mu ñu marché bu baax seddale bal yi ay paas marquage bu dëgër loolu lañ ko kii quoi. gars dugal waaw. ñu ngi lay jaajëfal dégg nga kàddu waaw merci jaajëf. ko gisee maanaam daal li ma si jaaxal mooy affaire du coronavirus bi quoi. waaw mais bu dul loolu moom Sénégal moom mën na dem sax ba final mais comme moment bii nii day xaw a difficile xam naa ne dañuy soox nànk-nànk daal ba keroog yu yegg fañ jëm parce que maa ngi dégg ñu ne ku si mel ne comme Kalidou Kalidou Koulibaly maa ngi dégg ne instant dafa commencé découragé waaw te loolu baaxul quoi waaw te tamit ma ñoon tamit xam nga ñëpp ñu waxtaan suñu biir ba déggoo xool daal nuñ ko defee daal pour mu gën a nice. si tamit naka gisee équipe Guinée bi nga xamante ni yor na ko ñu war a jàkkaarloog moom suba. waaw Guinée moom Sénégal moom mooy favori ci kawam parce que boo xoolee Sénégal moo ëpp la équipe professionnelle quoi waaw Guinée defe naa benn nabu keeta la la fa ñëpp xam daal. tamit bu baax la yor de Guinée. waaw Guinée moom baax na moom baax na lool sax kay werante wu ko waaye nag ci kaw ne Sénégal mooy favori quoi waaw. est-ce que Sénégal lu mu euh, Sénégal lu mu wane nii yow dalal na xelu sénégalais. non Sénégal li mu wane nii sama xel dalul quoi parce que li tax ma ne sama xel dalul parce que match bi mu joué nii bi passé su yoon premier mi waa ji waaw soit 2 maximum parce que nit ñi am yaakaar daal mais nii moom dalul xel quoi franchement parlé waaw. yaakaar ngeen nañ gën a score ñaata nga joxe. non match coupe d'Afrique boo xoolee yëpp a serré waaw boo xoolee parce que ay 1 bi d'écart lay doon waaw 2 bi d'écart c'est rare nga koy gis xam naa sax amu sax ba moytu sax mais 2 1 1 0 daal moo ciy ëpp daal. waaw kon donc Afrique kon équipe bi yëpp léegi kon dañoo yeewu ci football ñëpp mën nañoo football léegi macha allah waaw defe naa Afrique moom amul équipe ci woon léegi quoi waaw ñëpp ay professionnels la daal macha allah. ah match bi de jàmm rek lay am. incha allah ja match bi de Sénégal ak Guinée yëpp benn lañu comprendre nga nañ jàpp ne ku gagné rek yàlla moo ko may ndam loolu bu mu bu mu yàq suñu diggante ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey tey bu Guinée yóbbee ndam Sénégal moo ko yóbbu bu Sénégal yóbbee ndam yi Guinée moo ko yóbbu ñun ñoo bokk ndey ak baay waaw. mais aussi kan nga yaakaar ni moom moo war a gagné. non match bi daal ah dëgg-dëgg daal li football la amul logique football daal mën nga yaakaar ni gis nga lu dox diggante Algérie ak Sierra boo 99 pour cent koo boo ko laajo na naan Algérie mooy dóor tey tey. mais xanaa wóolu woo Guinée la doori Guinée mooy gagné affaire yooyu. naa wóolu woo. xam nga man Guinée mën na gagné Sénégal mën na gagné ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne mën na dóor sa morom comprendre nga léegi. nañ nañ xool rek. mais tamit ah, ñu gis ne ngeen ñoon équipe bu baax quand même ñëpp di ko rafetlu seen équipe bi ngeen xamante ne andi ngeen ko ci kaan absent di nga xamante sax gaana ngeen xam naa yéen Guinée yëpp gaana ngeen ngeen ragal de euh, ah, waaw léegi naka ngeen gisee quoi match ne nee leen équipe bu baax ngeen non la nag muy Gana Gueye ak muy Sadio Mané maanaam daal man li ma xam mooy li ma wër ba wër lii football la ku ne mën na gagné sax morom waa man de loolu laa gis si match bi mooy Gana Gueye nekku fi ak kii nekku fi en tout eh, kii 11 11 mooy dugg ci terrain bi. doon baa ñu doon leen 2-0. non mukk duñ ko nangu. <laughs> mukk non da bu neree kii daal nañ machinil kon. kon kenn ñun moom bëgguñu machinil ñun victoire lañ bëgg comme yéen bëggoo leen victoire bàyyi ñu bëgg. ñun bëgg de ba bu ñëwee foofu kon ngeen bàyyi ñu dóor ñu jàll. <laughs>